Fallou Kébé di président ay Saloum en même temps di président 72 heures si Saloum euh, bu bu Kaolack. dañ fi ñëw rek comme dëkk si dëkk bi nekk doomu dëkk bi euh, ñëw fi tamit ci ndigalu président la république ak premier ministre li ñuy jo wootee pour dëkk bi sesetal muy cinquième édition bi te ñun nag ñu tàmmu école Guédel Mbodj bi nga xamante ne ci lañ ko fi defee te nekk école boo xam ne ma wax naa léegi ne cosaan la. kilifa yu bëri jaar nañ fi génn fi donc ñu taamu ko ñu joxe suñu participation en tant que doomu dëkk bi pour ñu mën a préparer entrée scolaire bi ci ci ci ci ci jàmm parce que ñëpp xam nañ ne nawet bi bëri na jafe-jafe mais ñun suñu wàll rek liñ ci mën dañuy ñëw pour participer ci école bi pour ñu mën a dem comme li ma ko waxee rek xam nga matériel bi waa cadre de vie dañoo am dañ leen war a delloo njëkkal parce que dëkk bi ñëpp xam nañ ne suba ak ngoon ñu ngi ciy sonn ñi ngi ñi ngi bale ci région bi ak département bi di joxe seen doole kon bu nekkee ñun lañ ko defal ñun ñu xam ne doomi dëkk bi lañ c'est normal que ñu joxe suñu participation jàppale leen encouragé leen ba nga xamante ne set gi mu bëgg ci dëkk bi yàlla defal ko donc moo tax man appui bi duñ yem fii dañ continuer di leen appuyer le directeur régional mi ngi nii Cheikh Tar vraiment taxawaayam ci dëkk bi noonu kilifa déplacé wu kon nga xam ne affaire bi ñor na ko ànd ak ay agent am kon ça di ko kon kii ñii ku leen gën a encouragé motiver dëkk bi surtout centre ville bi ak feneen dinañ am beneen xar kanam donc loolu moo tax mu nekk sama ñëw tey ci ci ci dëkk bi. waaw xam nga école bi moom li ma woon wax rek parfois nawet bi dañ koy dañ koy dañ koy waajal nawet moom du nekk ne tey rek lañ koy mën a euh, waajal ci biir nawet parce que ndox mi moom mënoo koo mënoo koo defar wala nga arrêté ndox mi ci biir nawet il faut nga jël ay matukaay maanaam pré hivernal. waye man xamna ni école Kaolack yi betuma lokal parce que autorité yi locale bi autorité locale yi ni ñu wara jël ci matukaay ci école bi jëluñu ko donc man li betuma te gëm naa ne xëy na duñ ci mëna jang parce que dañ ko jël dañ ko jël jël ay matukaay ci ci mbirum école bi donc motax certaines écoles comme école Tabangoy bima juddoo man yaro fa man fexena ba ndox mi génn parce que lool moy sama sama waref ci ndimbalu wa jeune militaire tamit jappal nañu ci ba ba ndox mi génn donc looloo tax man ma xam ne lu ñu war a mën a jël ay matukaay la waaye nekkul lu ñu mën a jël tey loo xam dañuy dañ ko mën a defar tey tey tey. si suñu frère Fallou kebe nga xam ne que moom tàmm na lii duñ kenn du nekk gulet ci moom mu def opération yu mel nii. participer ci def participer ci poche am ak ci dooleem ñoom def ci ci programme état yu ci événement yu mel ni ci participation yi noonu en terme de matériel dañoo dañoo toogoon euh, keroog euh, suñu édition numéro 3 bu ñu def midi midi na bàyyi ci préparation di gàmmu bi mu fi jël matériel bu bëri indil ko sëñ sëriñ sëriñ bi. ne ko lii maa ko def ci maa ko def sama participation ci gàmm bi teg ko fi ci ci ci wàllu ci wàllu jumaa ji nettoiement bu mën am ci Medina Baye ni ñuy jël sama matériel bi di ko def ndaxte man doomu Kaolack laa war naa ko fi def man donc def ci bés boobu noonu mu defal ma benn promesse daal li may dig taxam ko ne digg bor la léegi may wane nag moom gor la ndax nu mu diggee def ko mu ne ma yow dinaa la préparer matériel boo xam ne dinaa ko teg sa loxo di liggéey mu leen di jàppale ci liggéey bi ndaxte gis naa coono bi ngay daj ak ci ci jàppale incha allah loolu la firndal tay mu jël ay lu mat ci ay ay ay burat yu yu takku dal di jël ay bale yu takku jël ay peel yu takku ay ratu yu takku lu mu yow lépp loo matériel ci walu ci ci walu ci wàllu nettoiement la mu yëkkati ko tek ko ci loxo cadre de vie c'est-à-dire tek ko ci ci ministère de l'urbanisme et du cadre de vie la ko tek ci loolu mu jëbal mako sama loxo min ma xam ne man maa koy au niveau régional bon koku non dañ kay dañ koy toll ñun ñoo amal ñukal di koy remercier vraiment ci ci li nga def Fallou yalla na la yalla fay ci ci jappalé jàppale bi nga jappalé administration ci wàllu suñu suñu wàllu suñu wàllu liggéey loolu dañ koy dañ koy koy gërëm te fu ñu ko toog nañ ko fa wax te lii nii lu ñuy yóbbu la ci kanamu autorité yi wax ko moom liggéeyam bu muy def ci wàllu donc administration si leen si jàppale leen ko du benn du benn rek la nekk on avait trois sites yoo xam ne war ñu waroon intervenir benn bi moo nekkoon donc euh, école si di Lamine Sow bu nekk Bongré foofu def nañ fi intervention donc net nettoyé donc ak école bu ñuy wax Samba Diak, bu Kaznak, Boustan, bu bustaan aussi def nañ fa intervention nettoyé ko euh, bu mu ak école bi ñuy wax donc Abdou Khader Kebe, pour Daro Ridwan bon donc yooyu yemuñu foofu tamit am na sekk fay aussi sama agent yi ñu ngi foofu noonu di fay def nettoiement bon donc yamuñu rek ci fi ñoo ngi ci bépp école bo xamné ne na ci région bi rek ñoo ngi ñoo ngi ci di di fàttali ne ko nag am nañu ay jafé jafé ci walu inondation ndax keroog euh, bu ñu defee CRD à l'entrée des classes donc le le directeur le représentant de l'IA wax na ne y' a plus de 46 écoles inondées au niveau au niveau au niveau de la commune de Kaolack loolu bari na takku na te ñu sapeur pompier ak ONAS ñoo ngi def liggéey bi pour wàññi ko fu mu nekk nii bon donc wàññeeku na bu baax a baax a baax waaye xanaa de mënuñu bañ a ñaan yàlla bañ a taw waaye taw bi tant que mu ngi am chaque fois à chaque fois bu tawee pare foog ñu ñëw pomper ñoom opération de pompage yi ñoo ngi koy def ak de désherbage au niveau donc de ces ces écoles là loolu moo nekkoon activité boo xam ne def nañ ko tey pour répondre ci quatrième édition bii nga xam ne mooy bésu set setal président euh, Bassirou Diomaye Faye moo ko wax pour ñu def pour ñu def ko mu suñu programme donc administratif officiel